ne yooyu yaa tax ma dellu si fii. waaw ndax dama euh, nekkoon ci euh, ay farata. Mm-hmm. yoo xam ne moom laa lay bëgg nettali nii. Mm-hmm. Euh, léegi dañu nekkoon ci armeel yi maak suma frère bi Alaaji Mbay Gey ñoo àndoon. Mm-hmm. ndax suma grande sœur soxna Fatou Bintu Guèye te suñu ñaari baay bokk ndeeg baay moo gaañu démb. ñu doon ko denc fii ci armeel yi. fa ma taxawee ak mhm. Alaaji Mbaye Gueye di wax rek sama téléphone sonné. Mhm. ma daal di jël muy euh, Serigne moor mbay bu tuuba mhm. te ñëpp ràññee ko ci bëgg réewam. ñëpp ràññee ko ci bëgg jàmm. ñëpp ràññee ko ci dëggoom. ma daal euh, jël un de retrait. jàmm sant ak moom mu ne ma euh, Gueye dama la doon woo daal ndax urgence su dëkk bi jarul ñi di ko. ñi di ko faram kenn ku nekk yëg nga ko. Mm-hmm. amoon na fi kuréel boo leen créé woon yàlla dafa dogal fii réew mi toll képp ku mën a wax te sa kàddu mën a jëm kaw te waxoo. Mm-hmm. dinga nga ameel penc mi àq dinga nga ameel lislaam àq. Mm-hmm. mu ne ma xalaatoon la ndax ni ma la woowee noon laa woowee oustaz daan Ndiaye. le président de la ligue des imams et des prédicateurs. nii ma la woowee noonu laa woowee Ababacar Mbuub di kordinateur ànd sama jikko yi daal di ma liimal ay kilifa yu bari bari yoo xam ne vraiment euh, Jamra yàgg na leen naw ci seen taxawaay ci dëkk bi. ci wàllu sàmm valeur yi ak sàmm euh, ndonu rafet la yu mag ñi baax ñi bàyyi ak tamit di wottu jàmm gi. mu ne ma ne dañu bëggoon rapidement ñu mën a daje. Mhm. def réunion tëral benn plan d'action. plan d' action bu ñu ci paree nañu woote conférence de presse rapidement dans les prochaines heures. pour siiwal ko pour yëgal askan wi ne li ñu tax a jóg. mooy wax ak ñi seq coow li mooy li ma la wax rek ay boo koy jéem a rek li doo topp ma riirandoo yi ci réseaux sociaux yi da xool ñi ko seq nga wax ak ñoom. alors mooy conférence de presse bu pare dañuy seeti opposition bi. maanaam Ousmane Sonko. waaye yeewi rek. waaw parce que toujours ñoom ñooy def conférence de presse ak yooyu. Mhm. bu seeti nguur gi. Mhm. muy président la Macky Sall le gouvernement le ministre de l'intérieur ministre des forces armées la justice. Mhm. ku nekk ñu wax ak yow un langage de vérité. Mhm. boo xam ne dañu bëgg mbirum par parloo ñu tegee ko nee. daal di jiital l'intérêt supérieur du du pays mu di jàmm. ndax Sénégal dafa nekk dans une pente dangereuse. élection yi taxul may wax ndax élection moom am na fi junni yoon. pante dangereuse yi mooy yàlla daf ñu xéewale des ressources naturelles yoo xam ne ñu bari ñu ngi teg seen bët. ci pétrole beeg gaz beeg zircon bi. te dégg naa pétrole bi Sénégal am ça fait partie des meilleures qualités de pétrole. ñëpp a gis nañ ne sélection amoon na. sélection comme examen rek fu mu amee dana am ñu gagné am ñu perte. te am na ñu perte. ay grands exploitants euh, pétrolier qui n'ont pas été sélectionnés et qui ne sont pas République arabe syrienne loolu fa amoon ñoom am nañ pétrole gañ waaye dafa amoon. ñu soumissionné woon gañe ñooñu. enquête yi euh, puissance européenne yi def bi euh, ayu euh, Syrie bi jolle. bokk na ci résultat yi nee nañu am na ay mouvance jihadiste ñi leen armée jox leen gànnaay. mooy ñu soumissionné woon te perte marché daal di jëfee loolu ko ci bar ma di wax naan du ma lekk ci cere ji waaye danaa ci xëpp suuf ñooñu ñoo taal la Syrie depuis plus de dix ans safara sa ba tey fayu Bachar al-Assad nelawatul bayandoor ak les pays voisins guerre baa ngay jolli parce que ay wi ci biir la tàmbale comme nii rek ñun xëccoo les pro Bachar les anti Bachar rek noonu yi jógee bitim réew nga xam ne seen xol a ngi tàngoon ci li ñu euh, li leen ñàkk sélectionné ci pétrole bi dugg ci yëkkati ay gànnaay di ko jox ay mouvement jihadiste ay syriens di reyante euh, contre de syriens voilà la réalité est là on n'invente rien mën ngeen dugg informé wu dans les réseaux et cetera fépp fu am pétrole bu tàkkee dans quatre vingt pour cent ay force occultes yu jóge ci biti ñoo jox gànnaay benn fraction euh, contre une autre faction koo tax ma ne Sénégal dafa ne dans une pente dangereuse ba tax na suñu sensu démarche mooy attirer attention classe politique bi opposition comme pouvoir ku ci ne na nga ne sa logique parce que ay Ousmane Sonko ay Malick Gakou Abdou Mbaye ak et cetera ils sont dans leur logique une logique normale c'est-à-dire une logique de combat pour la conquête démocratique du pouvoir ñi nekk ci nguur gi tam bu doon ñaari fan moo leen dese sax avant élection yi ñu ngi nekk dans leur logique de conservation du pouvoir kon waxuñu kenn nga bay la nga ne ku ne na nga téye ca la nga téye waaye jàmm ji nga xamante mettons-nous d'accord sur l'essentiel mooy il faut sauver le Sénégal mhm. pour éviter noonu Sénégal yi dugg ci réew mi taal ko bu ñu demee ci Macky Sall lañ ñu may ñu accéder si moom bu ñu bu ñu leen di wax sàmm leen réew mi suñu ressources naturel yi am na ñu ne ci bitim réew teg ci bët et qui n'ont pas été sélectionnés seen yéene mooy taal réew mi ñëpp a perte parce que yow li tax nga ñëw fii yow Abdou. da nga da nga nekk si jàmm. taliba taliban yi jàmm circulation bi tax da jàmm. li tax man ma toog yow ak yow tey di wax di jël sama temps nekkuma di xool asamaan si ndax yaa a des bombes kii parce que jàmmam mm-hmm. kon nit ki amul loo mën a nas ak ambition yoo mënti am ci réew mi lu muy nekk des ambitions généreuses ak lu mu nekk ambition yu rafet mhm. te jàmm jiituwu ko doo dem fen voilà kon l'opposition comme la pouvoir ils ont le devoir et l'obligation fexe ba suuxat jàmm mhm. doog wax nag waxi politique dégg naa ñu bari naan eh, waaye jàmm dëggaa koy lalu waaye euh, si biir euh, dëgg googu ci kaw jàmm la ñuy waxtaane ba dëgg mën a voilà kon nag bi ma sëriñ Mor Mbaye waxee loolu. ma ne ko da nga baax rek waaye mënoon nga ma sax bañ a tàggu. ndax kilifa nga. boo ma convoqué woon tey ne ma fekk ma Touba damay dog sama soxla fekk la. ma ne ko yàlla dafa dogal euh, alxuraan yooyu ngay dégg benn bande bu ñuy teg la foofu ci armeel yi. dañuy denc suma sœur Fatou Aja soxna Fatou Bintu Guèye suñu ñaari baay yu bokk ndeeg baay. maa ngi nii ànd ak suma frère ji Mbay Guèye mooy kii toog ñu ngi nii di ko denc ma ne ko waaye nag c'est une puisque c'est une course contre la montre bu leen ma xaar commencé leen ñun waa Jamra on va prendre le train en marche juste le temps euh, ñu denc soxna si dëj bi passé parce que dëj bi moom yëpp tey lañ koy yemale loolu laa sëriñ Mor Mbay ma ne ko bu leen ma xaar parce que personne n'est indispensable ko ca bar ma ne benn picc mënula yàqum ndaje la preuve fi ma taxawoon di ko wax loolu ci armélie la te boo xoolee yi ba fu sa bët yem lépp ne salaw ñii ñëpp il se croit indispensable waaye yàlla il leur a prouvé le contraire te cette règle universelle suñu boroom ci sañ-sañam teg na ko sax ki ñi gën ñun ñëpp di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anamu tey suñu boroom oowu ko barzaq depuis le 8 juin de l'an 632 dem na est-ce que tere na l'islam bi continuer di dox au contraire sa jamonoom l'islam a ngi tolloon peut-être deux 200 250 jullit léeg-léeg bu ñuy julli sax dañuy ragal a nodd sax ndax les euh, les les les Quraysh euh, féticheurs yi noonu l'islam yi bañ leen dëgg pour fitnaal leen 200 300 musulmans moo fi ne woon léegi mille cinq cent ans après la décès du prophète l'islam jóge na deux cent cinquante à trois cent yéeg ba un milliard six cent millions de musulmans kon yonent bi si boppam benn picc la taxul ndaje umma islamique bi tas tubaab ne nul n'est indispensable d'accord ma daal di wax sëñ Mor mbay nag ne dem leen ngeen tàmbali bu leen xaar sama jëmm ju ñàkk solo ji je ne suis pas indispensable ndax benn picc laa te mënumaa tasum ndaje commencé leen saa ma jógee ci dëj bi rek je vous rejoins voilà kon loolu mooy scoop bi léegi nag bu ñu dajee dinañ leen convoqué yéen presse bi wax leen suñu plan d'action euh, par le bier d'une conférence de presse bu ñu leen waxee suñu plan d'action kon waaye yeew yi nañu préparer nous viendrons les voir maa ngi profité tamit ci Feeling Dakar wax Macky Sall nañu waajal en tant que président de la République le chef de de l'exécutif la clé de voûte des institutions mm-hmm. doyen Hadj Mansour Mbaye tàmm di ko tuddee dégg nga le gardien de la constitution mm-hmm. ak yeneen ndombal tànk yi yàlla teg ci fonction président de la République mu di le chef suprême des armées le président du conseil supérieur de la magistrature le protecteur des arts et lettres. kon fonction président de la république depuis Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall fonction bu diis la bu am doole la. kon Macky Sall dafa yore caq ci baat ku yore caq ci baat nag doo poñante. voilà kon maa ngi koy yëgal à travers Feeling Dakar te xam naa dina seetaan message bi. inchallah ñu ngi koy yëgal ne bu ñu jógee ci waa Yewwi dinañ la seet si yow. parce que yaa ñu yaa ñu chef ñun njaboote ñu. loo bëgg ci dëkk bi rek loolu lay am. fi mu ne boo jógoon ne na jàmm am jàmmam mhm. parce que yàlla moo may euh, boobu fasaaxa boobu doole boobu chef d'état mhm. yàllaa ko may chef d'état mhm. Macky Sall bu jógoon ne acca jeex na coow li jeex voilà léegi nag du dugg ci ay détails waaye bu ñu toogee ak kilifa yooyu ma la wax te gëm naa ne ku ci nekk bëgg nga jàmm waaye yeew yi bëgg nañu jàmm ndeysaan léeg bu ma gisee le doyen Habib Sy xool le doyen euh, dégg nga euh, Khalifa Sall. Mm-hmm. ndax ku ci ne dama la xam. surtout Habib Sy. Mm-hmm. bi mu nekkee directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade ndax man ca laa bokkoon. Mm-hmm. yore la la parole de la mouvance présidentielle. parce que ñun jamono booba suñu benn bokk yaakaar mu ngi tuddoon CAP 21. Iba ci am nekk coordonnateur bi man ma nekk la porte parole. je connais bien Habib Sy ci bëgg jàmmam ci sagesse xalifa Sall waxi noppi Khalifa ñu ngi mujjee dajee euh, quelque part euh, ci booru Ngor Wakaam wala Almadi parce que sama sama frère bi àndoon ci bi voilà suñu doomu cousin Pape moo doon ngénte fa laa daje wecce ay kàddu Khalifa parce que gëj nañu waxante moom tam nitu jàmm la kon na xam ne jàkkaarloo nag ay noon yéen waa yeew yi na ngeen xam ne tam Macky Sall du seen noon suñu noon mooy ñi toog bi yeeru di xaar dëkk bi jaxasoo ñu ñu xëpp ci suuf ñu perte pétrole perte lépp dëkk bi tàkk ñooñu ñooy noon yi. d'accord kon na ngeen boole seen loxo euh, waajal loolu. Mhm. waxuma ne nag bu kenn campagne